lii ak yeete la saa su ma nettalee teg ca wir na lool mooy lu doomi sëriñ bi walla ku ko fi fekk wax walla mu bind ko saa su ma bindee wër wér na kese mooy lu ma dégg ci mag mu jële ci ku fekke ci téere bi saa su ma bindee siiw na mooy loo xam ni ka ko wax jëlewul ci ku fekke waaye day sàmm diineem saa su ma bindee wër na mooy lu wër ci barab yu bari ña koy nettali mën nañoo wér mën nañoo mel nu ne saa su ma bindee loolu mooy gàttal gi dagg naa ci waxi ku dul sëriñ bi dara wala mu am xeeti nettalin yu bari ma ba ca gën a gàtt wallahu taala alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar nee na bu la bakkan woowee jëme la ci lu bon na nga wuyu sunu boroom ci yiw bu bànneex woowee jëme la ci réer na wuyu sa boroom ci njub bu la adduna woowee jëmale ci wor na nga wuyu sa boroom ci topp bu la saytaane woowee ci moy na nga wuyu sa boroom ci jaamu wér na lool